bëri na de waaye ba jàmm la yaay sa bëgguma kenn yëg xam nga fii moom daa mel fu ñuy takkee rajo kër gi waaw dama lay yëgal damay dem dem bu gàtt rek waaw xam nga li ma la wax hmm. bul wax kenn nag sama waay nga hmm. lu ñu ni nii kër gi yaay borom kër gi gérer damay dem ndax man sonn naa daa am lu may lijjanti ci par am na ñoo xam ne bu ma ayee seen néeg du ma yëg sama bopp waaw ñu may yëpp léegi foo jëm dara fan nga jëm Gàmbi laa jëm lan moo xew Gàmbi damay wuti ku ma dimbali <laughs> xam nga jigéen moo ko jox lekk mu naan mën nga koo def lu ne du sol waaye boo tëddee ci lal bi nii xóot boo yow mu yeb la man nag bëgguma ko ma yeb yow daal kër gaa nga <laughs> eh, ku baax kër gi doo ma ko dénk ndax doo dem kan du dem yow doo dem mais tax nga bon fan nga jëm li ma dal lu ma dem butit bu ma fekk ma ma yee la jarul dem Gàmbi di yàq sa xaalis di paas kan Serigne Habib Dia mi ngi fii ci biir réew mi ci biir réew man fii biir Sénégal fii ma nga Dakar ma nga Tivaouane ma nga fépp dama lay jox numéro nga woo ko lépp loo xam ne mi ngi sa yaram mu xoolal la ko dina lox lii moo ca ne lii moo la dal bu dee sa mbiri sa bi ngay wax nii da koy wekki waxuma dindi da koy wekki ba mu set tee nii tegal la nee jëlal numéro bi jël bu dee bi te dem 77 gaal ma ñàkk sa baay de ma sa baay boo jomee rek <laughs> ah, day bu wéree mooy la ah, nga ne la boo wérul sama doom ñàkk faa dem kay moo tax du wér. wala nga woote jëlal 77. waaw 378. waaw 78. waaw 18. waaw bari na 18. kuy sa baay. bu may rëggul may nay nag sama xaar daa wér. xaaral ba mu wér. vocal ko ni ko man la man la man la man la kii. billaay mën na ci xaaral daal. waaye du déggoo ma la da ciy foo. xam nga xala dafa am ñoo xam dañ koy dañ koy apaiser mu mu mu nekk fa après demaat day yëkkati xale bi nii nga koy seen nii mu tegal la ko nay sa mbalit ma foofa toj. maa ngoog aw ma jot dama ne ci benn mission. maa ne ko waaye non bu ma wéree kay moom un problème pas pare ngay dégg. tu es à l'aise comme ça waaw na wala te ñoo dem fee nga tëdd. bu baax na waaw ñu toog. ça. ñu toog si baax na. dafa xaw a tàng nag tuuti. waaw suuf. salaamaaleykum. Kiné. Hmm? bu. yaa ngi tane. yaa ngi tane ba. waaye man yëguma woon ni da ngay génn. Ah, xam nga bu ma ko yëgoon mën naa indi sama oto ñëw jël si la. te dégg naa ñi noonu lañ sonnee pour indi la. Hmm, sama yaay yow ma xëy rek instant bi wax ko mu ñëw. mais yaa ngi tane bu baax. yaa ngi tane bu baax man tane ah, Massa. maa ngi ci jàmm. bu baax soit foo xam nga àdduna moom nii la. ñu naan tey day neex suba mu naqadi. mais soit foo rek incha allah yàlla baax na man moom damay génn ndax dafa am benn courrier bu ma war a dem yóbbu mais après maa ngi ñëw léegi bu may ñëw loo bëgg ma yendaaleel la. ma indil la fruit waxanteel ma ak yow de sama jëkkër laay waxal loo bëgg may dëgg xam naa li nga bëgg maa ngi ñëw dégg nga soit foofu yàlla baax na tane la jàmm bopp la jéeri man am na lu ma metti du ma ko téye xam nga lan la mooy maanaam yow kër gi laa mënatul bokk ak yow ah, ah. may naa la sa baax ah, def bu alhamdulilah eh, alhamdulilah bu muy neex kaay kaay taxaw yow soo may samba damay nekk fii di crise de nerf wala damay nekk fi def crise épilepsique nit ñi di ma ëpp bu nay neex xoolal soos boo ma gisatee sa biir kër yow woo ma la ne lu dul fàtki ne bu maa la gën a suur maa la gën a bañ bu jë xam bu bu yoo xamante maaye ma lay laaj tey nag nga xam waa léegi nag yow tant que humilier woo ma tant que toroxaloo ma tant que piétiné woo ma ci kanamu nit ñi doo am jàmm lan laa def bu. loolu nga bëgg. ah nga moo tax nga fekk ma ma toog ci jàmm nga ñëw moo seulement laajte woo da nga ne ma tey nag j'ai pas compris ñu wax ngay engagé te yaa ngi doon kii kii moo ay tey. waaw parce que dama décidé woon ay ci moom tey finalement ku ne deux jours lay jël parce que tey waruloo woon fekk ci kër gi. parce que dafa am lu xew ba nga waroon dem j'avais considéré que da ngay dem que benn jabar laa am. ñibbisi nga ci kër gi dimbali bu la stress rek instant nii nga mel nii xam nga nga soxla repos xel mu dal lekk naan say garab di topp sa massage sa rééducation nekk ci jàmm bu la kenn teg stress man maa ngi sawet lépp loo bëgg suba ba ngoon jot man dinaa la ko defal t'inquiète même pas ñi waa kër gi ñëpp nag ñu ngi sa ginnaaw te xam naa dangay fàtte sa feebar di ñu xalaat bu ñu xalaat de ñun ñëpp ñu ngi ci jàmm lu waaye def nag moom la neex mais instant yi nga toog nii toogal nga noppal tëdd nelaw naan say garab loolu laa la sant dégg bu la kenn teg coow kay maa ñëw ma suwaat sax naa bëgg a tëdd fii ma defaral néeg bi nga tëdd. fii nii. waaw sa garab yi nga war a naan heure bi laa lay indil. Hmm. nga naan ko dégg nga. Hmm. maa ngi leen ndox. Hmm? maa ngi ndox. ndox nga bëgg waaw. Ah. naa gën a urgent ci yow ko sa jëkkër ci ñu jëlee hôpital muy doog a agsi nga war a mën a toog assister ko ah. bàjjen bu bi ngeen koy jëlee hôpital da ngeen ma tàggu est-ce que da ngeen ma avisé <laughs> man de pour man benn meuble laa rek si kër gi ndax ba bu di génn hôpital da ngeen xool ki la neex yow nga xool ki la neex nga woo ko ne dama nga jëli ji buuf. man boo ma considéré woon sa benn fii wala nga considéré ma comme sa doom bu buudee génne di nga ni ma sa jëkkër dafay génn mais man yëgu moon sax buudee génn donc man dama empêché ma dafa ci samay soxla. ah yow Amina quel est ton problème yow soxna léegi naa la soxla warula mën a gën a urgence sa jëkkër ji toog fi nga war a mën a nekk à ses petits soins yow sa wujj baa ngi lay gën a mu ngi lay rawli Fatou Kiné mii gën na laa doon garmite ndax moom amatul benn soxla ci àddina bu dul jëkkër yow tey nga mën a taxaw boo di ko def li yow Amina jërëjëf. waaye nag fi mu toll nii nii nii boo bëggee dégg dëgg sama soxla yi ñoo ma ëppal importance bu ah. est que dégg nga ma te bu ma tardé bàjjen dafa am bu ma war a envoyé xajal même ma jàll. Mm. gisee buum wàcc ci oto ko nga téye na je parce que bu dafa nekk koo xam ne kii waxuma la sax man li may defal dama ko jillale mais waa kër gi li mu leen defar guddi bëccëg bàyyiwul dara bu yére sax du ko sol ndax kan il s'est pour nous mm-hmm. problème su amee mu jóg taxaw ci. à toute heure bu am na problème am na fi ñu yee ko deux heures trois heures du matin mu jóg taal otoom dem rek la ci ko ñëwaat donc Congo dafa am njëriñ ci kër ko war a que kii su jógul àdduna tukki sax ñun ci famille bi mais bureau këram mbedd mi damay des ay nit ñu naan boobu euh, bu nit ku naa fi problème tel mu ñëw réglal ma ko te kenn yëgu ko kenn xamu ko te bëggul sax nit xam ko papaam nag mii tey ba moo gën a méchant koy gis tey su yoroon fukki dërëm tey du ko séddoo kenn jaral na ko moom rek rek donc xal faalewul jabar faalewul doom faalewul kenn moom rek mu lekk ko togg yoruma dërëm loo ko wax ci kër ci bu mu ne mun aw fekk yor na ay millions di ko encaissé mu daal bu nañ ko ñaanal jàmm euh, yàlla bu la dee dog fi mu toll nii dama fee nekkul di wóoy birima foo yendu ma yendu foo yendoo naa non nekk ma fi di loolu gis nga buum yi pare na ma ni buub jeexal na ma pare yow xamoo luy AVC càpp accident vasculaire cérébral est-ce que xam nga ko yow yow xamoo AVC de càpp man dama maîtriser AVC dama ko téye sama loxo bi gis na fi mu toll nii buub mi ngi si quatre-vingt-quinze degré te soixante soixante rek loolu beneen affaire bu fi mu toll nii day dee loolu moom nga xam ko ak nga ñàkk bañ a xam góor nga nag war naa mën a waxtaan ak yow si loolu yaa ngi dégg man dama maîtriser AVC dama ko xam quatre vingt yi mu toll xam nga fi mu toll nii quatre-vingt-quinze multiplié par trois dalay jox trois mois quatre-vingt-dix jours kii bu dundaatee fii ak quatre-vingt-dix jours sant leen yàlla man kay li ma bëggoon mooy ñu jéem ko xool fan la dugal xaalisam yan compte la am ak yooyu xam a ñu jéem a xool nan la ñuy doxalee pour téye loolu. parce que ki dee bu fekkee da ngaa nëbb say kanam mais yàlla baax na yàlla moom. ba gi mu toogaat ci salon bi dañuy sant yàlla rek moom. Mm-hmm. kenn yéen a ko de wax dëgg fa yàlla. Oh, mbir mi moom mooy li ma doon wax rek xam nga kii àdduna du ko jey mm-hmm. waaw def boppam tubaab ah nan hôpital rek mais man maay sa baay jiitu la ci àdduna jiitu la ci ay jabar Afrique dafa am ay réalité néewuñu la euh, hôpital baaxul waaye cosaan kenn du ko baax liggéey bi moom mën naa kaa delloowaat ci ñoom ñu ko def mën naa leen kaa delloowaat Ah, fii jarul ñu fi delloo dara. par force li muy def génne génne na ko ba pare ñun li ñu war a def dinañ ko def. soo nee pipe ñu delloo ko ci boo naan pipe ma ko ci delloo waaye man nag gor laa man man ku ma tooñ ma ilaala ak yàlla te lii nag bàyyi naa ko ak yàlla ak i bokkam. sa bopp bu man mi. waaw si sa boppu de. jàmm lay waajal li nga xamante ni faa nga jóg sa bopp. ay ndax. kii kan wax ñu koy waajal lu grand man. wax keneen yow lay te nee la woon gàllaay gu ëpp baay ak ndey nit mënu koo am. am ak topp sa jabar yi xaw ma ay nit lañu xaw ma ay rab lañu xaw ma lan la ñu dugal la ci circuit boo xam ne mënutoo faa génn te mënoo dellu ginnaaw. xam nga yaa ngi nii def sa bopp tubaab ngurbaan du ko lekk waaw te ngurbaan ku ko doon yooyu doo yaay ay gourdin di la dal moo moo moo gis nga li ma boppam tubaab xam nga li ma waaw gis nga yi yu bari yi mu yar nii te mënoon a yari xaj waaw dégg nga waaw gis nga waaw xaj fi mu xaj yi fi mu gën a ah, hmm? fi mu toll nii temps bi fii moment bi ñu dafa critique dafa sacré hmm. sa soutien la xale bi gën a soxla ba kii fi mu toll nii yow la décédé yow la fi am. sacrifié nga jàppale sa doom ji. ci lépp lu mu laaj rayal sa bopp miraasal sa bopp. de eh, de non laa lay wax nag kii lu ne def na ko nax yow. ndax tey bu ma mënoon a jàkkaarloo yàlla ba wax ko fi nga ma féete sa ajana day leer yaay doom joo xam ne ba nga juddoo ba léegi dama lay tooñ di la teg lu diis te onko lépp nga encaissé. walla li la neex ak li la naqari taxaw nga ma bor bu nekk waaye maa ngi lay wax maa ngi lay ñaanal li def sa àdduna léppay leer kooku seedal naa ko suñu borom waaw foo jublu rek yàlla na lépp leer waaye njaboot gaa lu ne bu def na lu ne nag léew jël na lu nekk defal la ko ah, téye la téye say njaboot yow nag yaa fi mu toll nii la la bal la bal est dans votre camp. Hmm. fi mu toll nii yaa ci des de. Hmm. defeer waneel sa bopp ba ñu xam ne sa doom ji tënk nga ko lu yàlla defaat bu bis toog toogee dinañ ne baayam de kat euh, kanamu na ko ginnaaw na ko. li ma mën xanaa moom ordonnance yi tegaloo li ma mën li ma ciy def waaye. xam nga ordonnance ah boo ko jënd nga koy jënd. ordonnance kat bu fekkee ni ordonnance bi fekk na loo teg foofu waaye dañ koy lijjanti rek li ma mën leen ko ciy def. ah ba dëgg la yaa ngi ko ah. moom wax dëgg yàlla jël naa samay engagement boobu. Ah. waaw. ndax déglu rek dañuy waxtaan. Hmm. ndax buum ni li mu dal li mu lu ko dal tey jii moo ko teg boppam. ah waaw topp loxoom. bu topp na loxoom topp biiram. moom daal wax di euh, slogan bi la jàpp rek naan ay ko dee sa biir ngay yóbbaale. ba tax na euh, yow loo am da nga ne lekk laa ko def loo am pizza nga lekk. ba ci lekk bi lee ñuy jaay tamit jot deux mille trois cent. bu bees bi la. am na beneen tur bi laa fàtte. boobu da koy lekk. Ah. kereb bii noonu la ko bëgg lekk jàpp lekk gi di lekk nit da ngay suuraale ëllëg xoolal lii tey dencoo dara. dencoo luñ la mën a fajee bu heure bi fekkoon boo amee junni jël 2500 dugal ne jël 2500 faj say soxla kon bu boobaa boo feebaree dañuy dem ca compte ba rek man ma dem uniquement ubbi compte ba bi ñu faj mais dencoo dara coofi coofi loog dem wëgër wëgër yi naka te daal dëxëyeeg borom biiru rëy yi amuñu xel seen i ah, bopp ak biir ak lex biir kese lañ am dem seeraan rey naa dugal ci frigidaire bi fi tubaab yooyu tey mi ngi nii jaayee safee nga jënd ba woo dara topp sa biir top sa loxo moo tax gis nga ne ah. li kenn yéene wu la sa papa mi bi mu tëddee fii keroog jàpp ni day dee li mu wax ni da koo am ci ay kër da koo am ci kenkayri ak xaalis dëgg la. Mm. dëgg la kay. man nag personnellement xalaatu mu woon ni am naa bàyyi bu ma soxaree noonu kii tey bu fi génnoon man duma bokk ci ñi koy doon loolu man leer na ma parce que yéene wu ma alalam mm. comme nag man bopp ba léegi maa ngi wasloo ak li ma mën ak li ma mënul yëpp maa ngi koy dajale. ngir bañ njaboot gi tas ngir jàppale ko moom ci li mu war a def ndeke am na ay kër di fayeeku ay location di ko denc fa mu yóbbu xaalis bi nag xaw ma ñaari kër dama doon délire kay ni déjà dépense bi ay jënd ay xar di ko def ci frigo bi loolu mënatuma ko parce que pooju xar yi ñuy dompet ci biir ah. déglu na non non non amul foofu bul fa dugg damaa sonn ci jënd xar bàyyi ci frigo bi jënd ay 30 ginaar def ci frigo bi ñu nu déet ma dem peese si jën ñu yóbbu ko fii ci frigo bi loolu laa mënatu léegi bu sa bàyyi nga joxe non defal naa sama jabar yi non sama jabar yi ku ci ay dana dem marché jëndi as jën wala as yàpp wala as ginaar ñëw togg ko ñu lekk. mais loolu sa réputation la sama réputation na détruire soxlaatuma réputation. non yaa foo bàyyi sa bàyyi foo. loolu benn loolu la toog ci salle bi dugg ci wifi bi fu na ngeen dugg fa. seen bu na ngeen jàpp ko suba ba ngoon loolu mënatul nekk ci kër gi courant bi dafa metti ndox mi ñuy ubbi di ko yàq mënatuma ko ah, sama papa laa joteel yéenay jabaram ñëpp laa joteel dama ne ko mbiru ndox mi yow man télé bi man na kooku ndeyam la mais man daal euh, euh, euh, ba lijjanti naa hmm. def ndax dama ko wax ci kër gi ñu wax ma ci lu ne ma ni bu ëllëgee buñ demee fële ca fu fu sëree ba hmm. yàlla man lay laaj lan moo tax nga amoon sa idée originale pour xale bi nga téye ko defoo ko. kon lijjanti nga xaalis nii. lijjanti naa dugal hmm. naa photoom ci internet bi. moom mi moom. pour lan moom. pour social. Hmm. ba am na ñoo xam ne ci réew mii. dañoo toog rek banque seen loxo kenn du leen xamal dara ñoom lu ñu fi nekkee mooy nit am problème ba ñu fajal ko ko. dugal naa loolu kat c'est déjà fait dugal naa ko ba am na koo xam ne sax nee na ma. ndeysaan bu wëngi nii DG bi. kii nga xam ne lu ne la ma daan defal dama daan am problème mbokk mu fajal ma ko tey jii yàlla nii la ko def man ko nii la ko def kii de tane na ndax gémmiñ gi demoon na ba nii médecin yi seen affaire ak seen kii ñu xëcc pour si ba mu yegg si loxo bi si sa yàlla na si def ndam mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag bu comme que photo laa dugaloon nit ñi am ñu jot na ñoo xam ne tant que réagir oo duñu xam mm-hmm. léegi na xam nga nit ñi moom preuve lañ bëgg ndax photo rek mënul attirer kenn mën nañ ne kii day joué wala nday njaay xam ma man nit ñi xam nga ñu bari amuñu si man ko confiant. léegi nag bu ñu bu ñu defee nii. ma vidéo la yoo xam danga mm. naan. Mm. non non bu affaire bi méttiwul la je valide rek ngay wax oui je valide. déet mais bi ngi ne wax lu leer nu muy waxee bëgg dugal ma ci man mii de sa jëkkër di bàyyam. <laughs> ah yow lan moo la daal. ah déedéet dama lay laaj lan moo dëgg la dëgg la comme bailleur yow validé nañ la lool. nit ñi ñaar doo nga dugalagul ah. ñaar doo nga dugalagul léegi dama koy def vidéo bu dimbali ma hmm? sa game hmm. essayé def ma defal waxal na defal defal ndànk bu ni ngay waxee kii ne mën na zeval dimbali ma may ma liggéey nag ndey defal defal ndànk wuy ma waaw ah, day baax na kii ne day ni eh, na bu ko dugal nii day dem déedéet defal ndànk mais ba damay liggéey damay bul yàq sama liggéey nag mu defal ndànk xam nga yow mbir mi boo ñëwee moom mi rek mën nañu sax ay kii rek dégg nga nga dégg nga mun naan bul ah xam nga wuy ma eh bu gën a la def nii sa loxo bi def nday defal nànk defal nànk wuy ma yow rek ak moom lii ñu accordé il faut kilifa bokk ci ba mënoo tee bokk wala doo dégg loo ci bokkee lu sëy mais xam naa ay bon volonté ah ah waaw mais gannaaw yow assuré benn vidéo rek. ay ay gis nga ko ay ay ay ay ñoom oustaz Youssouf Diame ñoom Alioune Diop ay borom volonté lañu. waaw mën nañ dañuy dimbali waate. Mm. ah bu defal vidéo waxal rek defal ah. bu harmoniser waxal rek. Ah. waaw gis ngeen sama doom ji. kaabaa ngi nii waaw waaw mi fi mu nekk nii. ngeen dimbali ñu feebar na te yortuñu dara. waaw kuñ mën a dimbali rek. waaw lu waay am lu waay mën jàpp xaaral ma dem lijjanti ko montage ko dugal ci bruitage yi. ah daa am bruitage. waaw ay jooyal loolu merci la. waaw loolu baax na dinañ am kuñ jëmbale loolu baax na yow it amul yoratuñu.